ndax fii ñu toll message bi nation bi la ndax ki ñu fal bu jiiti réew mi ndaw kon bu ngeen jëlee teg tudde ko def ko muy message bu jëm ci ndaw yi te borom réew mi léegi ndaw la kon yéen de seen yu muyu fa ngeen ko sànni li ñu leen te di ko lancé mooy lii ngeen fi jàng muy alquran ndax ndaw loo ko def loo lu dul yaa ngi yàqu dundam yaa koy tax ndaw jàng jàng lépp la waaye boo jàngee ba pare dangay am kilifa gu la purifier sa xam-xam sedd ko ba nga man jëriñoo la ci am njëriñ mën a jëriñ nit ñi la ci am njëriñ ndax ci xam-xam yi dafa am lu la rek luy gaañ lu yàq comme booy jàng dangay ramas nit rek soo paree taboo kilifa bu la ko seggal mën nga yàq réew bu te kilifa mu te ñàkk moo tax ñu ne uusiku ñu ngi leen di dénk uusiku ñu ngi leen di dénk ayuha sutaan fii xusuure yéen ndawi jamono bi message bi mooy taalum ak taalim jàng ak jàng kooku mooy message jàng nag boo koy def da ngay fàmm am ci pare fi ñoo ci ci sa jamono ndaw moo tax na ko taalum bi ci sima loolu lañ la sax ndax wa jaa fii xabari ka naqsi ci haja yonent bi nee na looy jàng ci ndaw dafa lay marqué marqué ci xol di nga lii xale yi def lii dafay marqué ci xol dootuñu ko gaaw fàtte moo tax daara ji nekk ci biir daayira daayira bi di sopp nga ngeen dugal daara ci biir seeni mag doon ko taxawee ba tey jii mu jiite yéen ngeen di ko taxawee yéen seen mag yi rek am na lew yéen siri yéen a def lew yéen a ngi yéen di wut ay relève ëllëg ci xale yi looloo ci kaw suuf mooy cee ci kaw suuf dafa am benn buur boo xam ne dafa dajale xale yi comme nii mu ne xale bu ci dàq jàng dinaa ko jox sol dinaa ko defal ay poids bi muy dajale xale yi yoo xam ñoom loolu pour ku dàq jàng ci muy kado yi am benn xale buy rom wala buy ñëw mel bu taxaw mu ne waaw xanaa kee bokkul ci xale yi ñu ne ah, mu ne ko waaw dangaa bokk ci ñi war a sàkku xam-xam pour bu ëllëgee nga mën teral muy jur teral sa bopp am ji adduna daanaka xale bi ne ko man damaa jàng ba noppi te kat boo xale yi ñoo toll góor gi ne ko kaay yi ñëw mu ne ko yow jàng nga lax yooyu asmaa yooyu mu ne ko waaw lu ñu ko laajee xale bi toog mu ne ko léegi ndax jàng nga grammaire naaw adiwo mulxa muqaddima ba ci mu ko laaj mu ton jàngal mu ko ak waaw lu ñu ko laajee xale bi ton mu ne ko yow bi tey li ma doon ci xale yi far daaj naa ko ci yow yow daa wax ma loo bëgg rek génn kàttan jox ko boo ma soxlaatee amul audience génneel kàttan rek soo ñëwee loo bëgg ma defal ko nit di yedd buur naan ko kii xale la xamul dara nga di ko jox day wutoon moom mu ne waaw ah naka la ñu dem mbooloo tas ne xale bi ñëw ca guddi ga mu dikk fekk baayam nekk dañ ko dañ ko ramasse mu ñëw ci yaay ñëw an mu ne ko yóbbu nañ ko police lu mu def mu ne dafa sàcc ñu jàpp ko ci sàcc xale bi wëlbati ko rek ñëw dëgg ci kër buur guddi na fëgg génne carte bi ñu ne mu ne bi buur bi joxoon carte bi ñu ne wala buur léegi nag doon na ni kii xale ya xamul mu ngi nii heure mu di la fëgg buur ne ko waxoon recevoir leen ñoo ko lan la woon mu ne ko sama papa laa dégg ni dafa sàcc bañ jàpp ko man ca te yaa ma waxoon ne loo bëgg da nga koy defal ma bëgg ñu génne ko léegi buur commencé ci xasaay bi yaa bon pap sa pap ji moo bon mu ne ko déet sama pap moo dund pap pap moo bon ndax lii ma sama papa def ma dem jàngi ba xam ni tey su ko papaam defoon buur ne wax nga dëgg joxe ndigal ñu bàyyi yooyu yëpp walla ne jàng mu am ci ndaw ngeen góorgóorlu bu baax a baax te tey connecté bi ngeen ci seen appareil foo fekk xale boo gis ñu ngi connecté yàq na njàng mi yàq na xel yàq na lu bëri nañu bàyyi connecté bi xam nga luy njëriñ déconnecté xale bu ci bëgg a jëriñu dafay gis nga yoon ci yàlla Ibrahim dafa teel a déconnecté ca ba mooy ndaw yàlla jox ko ñëpp jox ko di borom ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل daa dafa déconnecté yàlla woon ko yëpp yi mu ko war a mën yëpp yëpp ko mu bëgg woon yëpp mu am wa kazaalika nuri Ibrahim malakuuta samaawaati wal ard déconnecté leen bi ñëpp bi mu ñëwee gis aw xeetam connecté wu ci biir xam-xamu astro astronome mu ñëw déconnecté taw attaqué leen ci gagné leen ñaane ca ci weeroo ñaane ci jàmm ba leen diñee ci loolu jëndoon sa bopp bi ah kii mooy sama borom fekk da leen di joxañ dara ñoom ñëpp ñu ngi connecté wu ci tuuti bi fajar jot ba set gisul bi dugg mu ne ah man daa yàlla joo xam ne day dem ak a dikk soxla moom jant sox weer yi tàcc mu ne kon kii mu gën a rëy ba jant ba ba weeroo suuxee jant bi ñëw mu ne jant bi gën a fekk yooyu yëpp dañ ci connecté woon mu génn ci ne ñu kon foo jëm mu ne maa ngi connecté ci borom asamaan borom suuf yàlla wan ko mën a ko wan ko gis nga yàlla bu la naree yan yanam sëriñ Cheikh nee na yàlla du fekk maanaam quatre-vingts ans quatre-vingt-dix ku ko yen acte ko fu mu ñu a jóg ndaw yu mel nii ngeen di formé ñoom la yàlla yéen ëllëg yéen te Serigne Cheikh nee na ku ku fas yéene yéen ku mu doon waxuma ku fasul yéene am na ci nit ñi ñoo xam ne fasul yéene yéen dara waaye ku fas yéene yéen yoon woo mën a jaar sam yéen. dem ba àgg kottu kottu yoro yoro ba àgg lu naru ci mooy siraatika taamil asqam ñu dugg foofu ci tarixa xam nga jawharatul kamal salaatu ala nabi waaye mu ëmb ñetti salaatu allahumma salli wa sallim على عين رحمة ربانية والياقوتة المتحققة الحائجة بمركز الفوق والمعاني بين صلاتهم دوسين اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منه فوق لا يفتح دغفا توتي اللهم يوصل برام يوم القيوم الغنى wasallim ñi ngi a xéewal googu nga lënkale ko ak jàmm na ko yàlla jox xéewal te xéewal nga du sa bu mujj la aar kon xéewal yi ñu yàlla jox nañ def attention bu baax a baax ci biir te ñaan yàlla xéewal daal nga jàmm léeg-léeg nga gis ko am saxaw cartouche yu demee noonu Quran boppam xéwal la waaye mu baal baal baal génn yow mu rey bopp baaxul rek jënd xool boobu xéwal ba ci moyen yi ñam yi da ngay topp ñam yu neex yi ba mu jural la fab jabet mu xéwal loo wala mu jural la feebar yi nga xam ne maa ngi taal kon nag xéwal boo koy ñaan da ngay ñaan mu ànd ak yërmande salli yàlla nga doole xéewal wa sallim xéewal bu lëkkaloo jàmm ci ka fala xaynil xaq ca jëmmi dëgg jë xaynil xaq alati jëmmi tata jàllaa dana feeñ muriku manifesté wu minhaa jóge ko ci jëmmi dëgg jooju lu cay génn feeñ wurusu naqay chaise yi gouvernement yi bii photo yi dëgg-dëgg yi moo mag ñi ku ci liggéey ba toog ci benn ci photo yooyu mu jural la barke yaa say doom ak say sa bëpp njëg yàlla Seydi Hadji Malick ko am ku mel ni sëñ Bamba ngeen di njaboot kilifa gii nii ku ci nekk dafa dem ci boromam ba yàlla dëkk ku ci ruus alxaqaay ruus laqaay nag jamu xaas la ndax bi ne allahumma salli wa sallim ala tal ala ala hay ala على عين الحق التي تتجلى تتجلى فائد من هروس تتجلى منها هروس تتجلى هروس الحقائق منها jaar major ji mooy dugg ci diggante fii bi ak faay ton loolu ku jàng naaw xam nga naa jaar ak major gell waar gell waar la ci naaw loolu benn xam la boo xam ne xëy na gars yi day ci xaw ni man kon dañ cee gàttal foofu waaye daal wóorul su la xaay bu dee ci côté bayaan bi wóorul su la xaay min idaafati musabbax bi musabbax bi moom lañ idaafaal ci musabbax loolu ba tey ci côté xarut ak bayaan li ci am solo ñu mën ko ton ni mooy ñi ngi ñaan yàlla xéewal bu lëkkaloog jàmm mu sottil na ko ci jëmm ji nga xam ne mooy jëmmi xaqaarif yépp ci moom la ñu jóge léeg-léeg nga dégg ne man en tout cas man lii mooy sama dëgg man lii laa gëm xam nga sa dëgg du dëgg yow yaa ko gëm rek ne man en alxaqu min rabbi dëgg ci yàlla lay jóg waaye dëgg am sax xel moo la ko jox sam njàng sa tërëlin rek nga ne en tout cas lii mooy dëgg lii laa gis déedéet bala ngaa xam ne dëgg la sa dëgg boobu yóbbu ko ci alxuraan bu ko alxuraan reconnaître rek nga mën waaye sama dëgg en tout cas nii laa ko gis loolu loolu tegoo fekk korosu la xaay xay neen maarifin aqoon te ñuy ñaan yàlla julli ci moom def xéewal mooy xëy na maarif mooy jëmmi xam-xam yëpp fii xam-xam ñaar dafa am xam-xam bu jub ak xam-xam bu jubal moo tax nasaraan yi ak philosophie ñi gëmul lislaam li ñu am xam-xam la di ngeen ni ni ñuy jëlee adduna bi yëpp ndax lu leen neex rek ak marché ci àdduna mondial mondialisé lépp lu leen neex mooy yi leen ko wàcc ak marché xam-xam liggéey ay bombak ay char de ay fetal ay missile ak yooyu yëpp xam-xam la waaye xam-xam nañ ba mën a defar loolu moom lañu bëgg ñu dumóoyu ko comme ko xam tubaab yi nag ñoom loolu lay xam moo lañ bëgg kon nag maharif jëmmi xam-xam di la xam-xam maharif la ban xam-xam xayril maharif jëmmi xam-xam al aqwa xam-xam ba gën a jub comme xam-xam bu juba bu ka nga xam ne jëmm ci la xam-xam yu jub yëpp di mu jural la teraanga adduna ak alaaxira waaye xam-xam bu jubali wala jo joxe teraanga adduna kese kese nga ñàkk alaaxira xam boo ko jàngee nag mu jural la nga xam noo koy modifié ba am ci alaaxira am nga sens kon la jeunesse mooy jàng tax na tey ak xam-xam boo war a jàng soo paree nga am kilifa nag bu dee ci bu àdduna bi la daa la ko defal purifier la ko ba nga jëriñu ci jëriñ ci bu dee bu àllaaxira bi non kon ñaar yëpp baax na waaye bu dee benn rek nga war a am tànnal bu ëllëg ndax mag ñi ne ku am njar njar ñaar ñaar mu weex moo xam ne du jeex ak ko am bëri ko lekk waaye day jeex ñu ne tànn ci benn boo dee borom xel ñaar mi du jeex ngay tànn ci bëri ko lekk bi di jeex. kon nag xëy na mahaari fi aqwa rasulullah mooy ay maarif mooy bi gën a siraatika Muhammad mooy sa yoon yow yàlla kàddu yi kan li mooy sa siraatika tam al asqa boobu la gën yëpp daal jàngkat yi mel ni man seen alloo bëñul foofu la ñu daal ñu ne baatu asqa la fii non seulement feebar mais feebar boo xam dafa chronique ba kenn mënu ko faj ba métti lu tax Cheikh Tidiane tarixa mu ci andi baat boo xam day firi feebaru rag bu koy askan wi Rasulullah ñu bëri ci ñu amul ñi am xam-xam te am ñu kilifa foofu lañ jaar déwén yu ñàkk a naka laay te gis nga alquran baatu arab baat bu ne am na juróom-ñaari kii. yow xamuloo juróom-ñaar te am na ba ma xam juróom-ñaar fukki firi benn bokkul ak baatu asxam ñu ngi ñëw ko ci saxama saxama bu dee grammaire mooy faala bil bu fekkee ni may waxee xaw na gis correct ba wàcc jardin mu ngo kon boote boo ne saxam mooy firi feebar sax ki mu ngo wala nga ne sax xub ma kooku dégg na ñu ne sëñ Cheikh daan waxtaane waaw kay ñu ne ko affaire bi koy ah, war a dégg dégg na rek ndax it nag doo ko ba li nga waroon a jël yow di guddil ngir nga toog ba nekk ñu ñu wàcce affaire kon nag faala bil fëti muy saqama ak faala bil kësi muy saqima ak faala bil dami muy saquma en tout cas xam ngeen baal ni ñu koy maas kële dafa ne saqama kii na saqima kii na saquma bu dee saqama la kooku boo ko tëggee maanaam boo ko sottee boo ko wëlbatee ba indi ci rubaay yu askan su boobaa dootul firi feebar lu muy firi njub ay faat firi njub dootu firi dëng dootu firi feebar dootu firi ragal te gis nga boo dee jàng surtout alquran ak hadis góorgóorlu xeet mu ne langue ba ñuy firee langue ba ñuy waxee ñoom war nga ko xam ci seen firi bu boo ñu dee ko xam ñu yow la de demal firee ci xasal yi gannaaw fii baatu njub ne diw jubul dañ naan fulaan maa nga tasa gër jiw jubul dafa dëgg maa nga tasa gër parce que ga dañ koy jàng maa nga tasa maa nga ñoom nag bu ñu la tegee afara muy al asxam léegi njub lay fi baatu asxam jóge ko woon ci faala bi fan déedéet dama jóg ci faala bi këfër déedéet jóge ko woon ci faala bi dam ñu def faala bi fan ñu tëgg ko afara mooy asxam siraatika sa yoon la yow yàlla lan moo yoon yàlla mu ne Muhammad bii moo yoon yàlla siraatika atam yoon wu mag ba jeex tàkk al asxam bëgg a di jóg ak ah, ki leen doon jàngal yor daara mooy kat Sidi Ahmed njàmbaar gi wa Sidi Ahmed moom nañ ko ñaanal yàlla ku ko xool gis ni muy doxale ak gis ni ko yàlla bindee rek nañ ko ñaanal yàlla nitu kersa tey itam yàlla bu ko lammiñ ak ca dugg ci yaakaari mag yi la bokk ñu yem foofu ci moom ndax nit Serigne Cheikh nee na loo xam ci moom waxal ko ko lépp daa a seet lu ko dara yow kon am ci loolu kenn du waaye dañ ko ñaan yàlla dal bi xam ne loolu doy na ci la ca des wàllu yàlla mu di leen jàngal léegi nag bokk na ci message bi nga xam ne su ma leen ko joxee jàll ba ci Bassirou Diomaye sunu président ci ndaw yi la bokk ci ndaw yi la bokk kon nag message bi mooy ndaw yi nañu dal te nañu tee nañu bàyyi yàq yàq baaxul il faut que message boobu dem bi ma déggee kàddoom man ci sama analyse mu jub jubal jubanti dafa fas yéene jub lu muy nekk nekk ndaw ak jubal la. ndax boo jubalee doo mën a jubal ci kenn da ngay jub jubal ba pare jubal ci loolu mooy doxalinu réew ñu tàmbalee ca tàqala ñaar ba sangoo jéem ba assi ku fi njiit ku mu doon am na loolu ci réew mi lu baax am na loo fi lu baax am na loo war a def ci defoo kon soo ñëwee yow li war a jiite réew mi kon seen message bi daaw la maa ngi ca président na xool lu baax ci réew mu am ci teg ko na xool lu fi baaxut mu lu fi baaxut na lu fi baax na ko fi bàyyi ànd ca te jubal na sa sa Sonko nee na ko soo jubalul foofu la ñu fekk ci sono sa nopp ci te réew mi dafa diis surtout suñu budget secteur bu nekk dafa feebar njàng mi feebar na dund bi denrée yi feebar na dimbale leen secteur njàng mi feebar na rek ak dund bi ak lan santé waa santé bi feebar na lépp lépp lépp Sénégal màggatam quatre-vingt-douze ans foo laal mu métti nag bu na joxee réew mu toll ci réew bu toll noonu ngay ndaw yal na yàlla jàpp farata la imaam yëpp ñu mel ni ak ñeent di ko ñaanal ku ko xam jàmm xam-xam yàlla mooy jiital nit ku jiitu yàlla la jiital waaw yàlla jiital kii ba pare nga ne fi jiitoo yàlla dana la a jiital kon ku yàlla jiital ku am xam-xam maa nga xam ne na moom te di ko ñaanal yàlla message bu njëkk joxe loolu mun nga ñàkk garaawul xam nga nit ki lu nekk la ñuy seetlu di wax ñu ne xoolal ñu mu taxawee course bi normal ñu ne karawaat bi normal mu taxawee sax comme président buy taxaw ni mu taxaw taxawaay bi ñu ne normal loolu c'est normal mi ngi soog a dugg si day am équipe boo xam loolu ci wax doonatul lu ko neex lay directeur Fapal nag biñ ñu saa biñ dañ ko koy jox mu foo génn ñaare ci def loolu poids la bu ko yàlla jox waaye yàlla bu ko dangari ndaw jàpp. ba li mag ñëpp doon ragal ñu gis ci moom yàlla bu mag ci moom yaakaar te ñu koy ñaanal fu ñu toll. gi nga Macky Sall daanaa def ni mais musuma jox ñaari dërëm yu ma yëg musuma ko jox ma ko xanaa cee kanam jomaa yi moom du ma ko ñaan audience du ma fa def du wut dara maa ngi ci parce que quatre-vingts ans yu ma yu ngi yàlla di ma ba ma fii ma gis xale bu quarante-quatre ans may bàyyi yàlla di wéeru ci moom kon man du ma doon yàlla ni ba fii mu toll di ma dundal di dëgg rek laa koy wax ak yéenu ko jàll lii mooy si message bi ngeen wax ne à la jeunesse te mbokk te mbokk jeunesse wala jeunesse a jàngale xaaral yaa jàng la jeunesse yéen ndaw yi yéen ngi forme lu am solo loo bëgg mu sax ëllëg loo bëgg mu sax da ngay former xale yu tuuti yi xoolal Moustapha Sy bi ba mu juddoo quatre-vingt-huit lu juddu de soixante-dix-huit la juddu soixante-dix-huit la juddu Moustapha Sy xoolal ñi mu doon wax mu maag xoolal ñi muy demee ak ñi doon doxale xoolal xale yu ndaw yi muuru di dem léegi euh, xaaral bu yàgg xoolal tey ñoom nag xam nga ne soixante dix huit quatre vingt dix huit quatre vingt quatre vingt huit quatre vingt dix huit deux mille huit fanweer ak nangam ñu tuut tuutal ñëpp ci moo tax ku am cër la ku ko yàlla bu cër yéene nañ ko ko ñu ngi koy ñaan sunu doomu sëriñ ñun duñu jaamu kenn duñ jox kenn jox cër yàlla cër yàlla duñ ko jox benn nit alaaji Maalik duñ ko jox cër yàlla rasulullah duñ ko ko jox kon rawatina keneen mais li ko yàlla jox dañ koy nangu ànd caag moom di ko ñaan ah gis nga léegi paal maa ngi dellu maa maa maa ko mag te gis nga man xaw ma lu ma doon man eh. <laughs> lu ma doon man xaw ma ko wante lii ngeen di def importance bi laa leen yoon li ci doon mooy stock stock si la li xale yoon def théâtre bi sketch waaw léeg ma loolu dama tuwal sketch bi lu am solo parce que dafay naawoo xale xale yi da leen di sawarloo te gis nit sëriñ Cheikh neen nit boo ko bëggee jëriñ da nga koy sawarloo waaye damay jëriñ nit ki ba pare tayal la ko doo koo bëggee jëriñ da nga koy sawarloo lii ci ñu leen di encouragé ci bi gis nga islam ba mu jóge ko hijaas hijaas mooy lan pour bi nga xam ne rasulullah bi muy gën a àdduna na ko ba mu set balee ko ku dul wax ashhadu an laa ilaaha illallaah mooy hijaas ak loolu mu ngi tàmbalee jidda moo tax ba islam bi am doole ku dugg jidda sa passeport nekkul julit duggin léegi ñu wax ne américain yi sax am nañ hôtel léegi ca mag hôtel pour war na ne lépp yàqu privé privé lañ noo ñu koy privatisé boobu dañuy privatisé lépp diine ji privatisé noonu noonu fa nga yaakaaroon boo demee da nga fa yàqoo ba ci jàkk ñu war fa defaroo ci jàkk yi dafa xiiroo ko bonal ba ci mën a musiba day koy nga jàkkaarloo waay ngeen musiba te moom mu faa doo ko jox loxo daa doo ma ñëw yooyu yëpp ci war a wax di ko di ko wax nit ñi pour ñu jéem a defar loolu ndax alxuraan moom mi ngi defaree ba léegi waaye yeneen ci bi muy gën a àdduna ku dul wax ashhadu an laa ilaaha illallaah ci gul far mi jaas ba mu ne jaas mu génn àdduna te sampul kenn waxul kenn kii moo may moo may ambulance coow li te ba muy génn àdduna Omar nga fa Ousmane Ali Aboubacar moom dafa amoon ñaari soxla mu ayee yoon ci Ali tànke ba sax waaye bi ne yonent bi génn àdduna dañu tiit ba Omar ko ci jaasi ku ne Muhammad faat na rek وكان أورث عثمان وأخدر فاروق وأخدر لقلب بوسرامي lii baax na ci gis nga Aboubacar moom rek caamoon ñaareel di dund yoon ci biir saaba kenn ñi moo la ñaareel comme Ousmane Ousmane Diop <coughs> yaa ngi dégg waaye bi bi muy dund Fatima mu su ñemee wutal aawam taafu na yonent bi ñaari yoon yonent bi nag ba ko ñette yonent bi ne ko Aliou mu ne ko labee mu ne ko Fatima bii ma la jox tekkit la si ma su meree damay mer te su ma meree yàlla mer bu yàlla meree lépp yàqu loolu fàttali ma sëriñ Babacar Si ak Seydi tey surtout Seexu Tijaan sëriñ bi njëkk ñëw Sénégal dafa ñëw sëriñ Babacar Si boole ko Alaaji Mansour muy wër muqaddam yu mag yi pour ñu taraw ñu dem ba Kaolack rek waa Kaolack dañu xëy ñu fexe ba nangu gan gi ci loxo la lañu mën Alaaji Mansoor daal dafa yóbbu ba xam ne lii ñii nangoo ne ko mu wàññeeku ndànk ñibbi si Mbaa ba ko ah, yow àll nga mu ne ko dañ ko nangu si sëñ Ba la ko tudd yàlla sëriñ bi nag gars yi dañ di jaare moom ci kër yeeg dëkk dëkkaan yeeg muy beesal nit ñi di jël di leen jox ijaas sëñ Ba ba kër sëriñ bi daa jékki-jékki geesu gisu ne ana alaaj mun sa ñëw ñoo ngi na musiba noonu la daggee dëgg ñibbi si ba muy ñëw nag sëñ Babacar yëpp ko alaaji Mbay Basin moo ma nettali lii ci mag la jël bu nu alxuraan du hadiis rek ci mag ñaar nee na sëñ Babacar si kar benn saw yi rek am ci waaw sëñ la Haaji Malik fa la sëñ Babacar mosu jullee julli juróom yëpp benn jumaa ba fa am benn julli kone ca tas waaye xaqiqa moo fudd ci la war a gën lii am domaine boobu ku ko xamul wala boo ko xamee mënoo ko nettali nettali wudul gaañ ay man nga ko nettali waaye dafa néew nag ku fa dugg di ko nettali te doo gaañ ay nit ndax bu sa xol xol jengee jëm ci kenn rek yàqu bu fekkee man nga wax xam nekk nag dara ñëw ci ndax wal imsaaku amaa sajara bay léegi nag sëñ Babacar Tiwaawan ñëpp génn boo boo toogee ci sëriñ yi da ngay jàkkaarloo gaar boobu dëkk wuñ nii de ñu ne ay ran nga gàttu dañ def ran gaar ba ba ci sëriñ si daaj bay ci Babacar ñu ko toog ñu ran mu ne leen lenn laa leen di xamal maay seen sëriñ sëriñ bi du seen gan la du seen gan li nga fëlee si Babacar maay seen sëriñ du seen sëriñ tey sama gan waaye ba ma wàccee ca gaar ba gis dañu rane mu waa ko wut si seen si baaba nga rek dafa yuux wala yu kamaan wala yu kamaan wala yu kamaan bayul baat bi ba as ci kanam si maam di ne gudd te sot seexul yàlla mu ne ko mbaa xam nga ne si mbaa kira su ma la menee borom dóor réew bi mere la mu la ko xamal te bu la borom réew bi mere sama mere la mu la ko xamal te bu la sama ko xamal ci la bàyyee loolu moo dafa am loo xam ne bu la ko yàgg da koy incarné noonu la ci tubaab da koy incarné bu dëgër ci pour la boo xam ne doo nga ñàkk tegi mais boo ko doon def tey fii xamul dara ñooy fàq fure naan kii dafa ñàkk te dafa nangam nangam déedéet noonu dëgg ñu xam rek tax rek mooy askan wi damaa dëgg damaa ñëw dee te moo ko ku dee na wax kon nag yonent ni génn àdduna ne fëlu kenn kër gi jaxasoo amara nga amara ñu taxaw rek ku nekk. benn rek kii def xaal xaal la ko dugg rek xaal dina ko dugg rek xam boo koy doog a mu ànd ak sako nga dal du seen morom ne ñu tëralee saako yi Aboubacar Omar Ousmane ak nii la ñu ëppantee doole nii la ñu gënantee waaye yow na nga am fanatisme bi jaamin Mbàkke ne fekk xas Aboubacar ak Omar te nii la ko yónnati ba Omar Ousmane Ali kenn ku ci nekk nag am nga lu sa borom amul ci may ci xam-xam illa yaqaala laahu maa lam yakuni wala yakun kooku ñëpp la ko yàlla boo amee xam dama ko doon jàngale xoolal sama mbaxane mi xool ma ko sol seconde yi ak heure bii li ko tàmbalee ci aadam boo fi wax est-ce kenn kenn mas naa sol loolu kenn ma sol kenn du ko fi sol ci ko pénc loolu mooy lee xaadala moo tax say ma dem suukoon ba mu demee ba gis bayit bi nee na maa jaaxle boo demee ca téeréem ba nee na bi ma demee ba gis bayit bi mu jaaxal ba ma duggee ca trésor ba ma nit ma wax ni moom it def na beneen bayit mu bokkul ak boobu Maodo it wax na beneen ci jeexul Faatixatu kenn ku ne la yàlla may ci nii ma ci temps bi mosu ma yëgoon kenn nga dootu ko may kenn yooyu dañ ko xam Abubakar a gën a dal ñëw fekk Omar ñoo néew rek ci di wax rek ma dégg non gis nga li nga Aliou dafa tiit ba nafay bu mu jógee rek daal Ousmane dafa duub mënul wax gumb rek Omar Tass ci ñeent ci kilifa yi kenn fa nekk moo tax bu événement amee bu amul sago borom sago rek mooy mën a régler affaire yow mi war a régler affaire nga ñëw ne ñàkk sago ñu naan ku koy régler ñëpp yuuxu nga yuuxu fóote yow a régler mu ñëw dugg ci biir néeg bi booba demul nii xam nga kubéer yooyu ñii daa daan ràbb caay kata kubéeru néeg moom lañ ñëw dugg fekk sang baa ngi talli ci lal dalu xaalis xam nga boo faatoo da ngay gën a gudd nan ci yëpp lay ñu muur ko mbàjj boo mu sukk ubbi mbàjj bi muri ko ba ci dënd mu gis ñaari ko ci yonent bi ak bakkat bi leer gaa ngi def xay xay xay mu fóon ne ko billahi ya rasul tibta hayyanoo ma it يقولون حبيبا يا بدر ñu xootee yéen ñëpp jóg leen sarax yéen doo ko fi joxe góor ñi doo koy joxe daañu joxe waaye li ñuy joxe ko saaf lañ koy jox bu baax kon tabaarakallaahu billaay léegi jasakumullah léegi ndeysaan Aboubacar foon ko gën ne na ma ñëpp fekk ci jumaa waaw ku ñëw ñëpp ñëw Omar yi téye jaasi yow ñi moo wax sa si wàcc dem liggéey loo ci xam noppalu na loo ci xam dara du ci dëgg dee na mooy xam ñi wax ko rasul rek man kaana ya'budu muhammadan fa innahu qad maat wa man kaana ya'budu llaaha fa inna llaaha lam yamut ku daan jaamu yàlla yàlla nit dund na ko daan ne wa maa muhammadun إلى رسول قد خلت من قبل رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبيه ومن ينقلب على عقبه فإن وسجن أو ساكت Omar ne Bour Fousou ne wallaahi wóor na ma ne yonent bi alxuraan wàcc na ba jeex mu sa dafa waaye aay bi ñu ngi mel ne soog wàcc ma ko suul il faut que mu am ko am sago bu jëloon si nii te loolu day am ñu d'accord ci ne léegi faatu ñu ne bala ñu ko suul dañuy xam kan mooy léegi ku koy wut bala ñu ko suul daañu kan mooy wutu Rasulullah parce que waxul dese ñëw kenn foofu ñuy nekk foofu waalan saa mooy wàll mooy ñi nga xam ne mooy ñun ñii sama classe waalan comme ñii ay gan la ñoo leen daroon te mbir mi ñi la demee nañu jéem wut ñun suñu xalifa am ku daw ak si ci Aboubacar rek Omar ne ah waa Lansar ñu ne ca sax seen pécc di waxtaan ku ñu sax Aboubacar xool Omar mu xool ko ñu ànd dem ba ñëwee na leen fekk ñu toog ci loolu <coughs> Omar nag Babacar daf na ko bul ci xaw xam nga war na fa tànn bul ci xaw Babacar ñëw nu leen leen dëgg la kat yéene suñu nee na bu ñu di mbooloo ñaari xur maanaam ñaari yoon xar yoon mi lan sar jaar wii moo jëla jaar yoon wi lan saa jaar laay jaar ñun ci wax na loolu de teraanga bu na jox leen waaye moo ne al aimatu fi Quraysh njiit yi nag ci muhaajiriin yi lañ bokk seetal ñu la seet xool dafa xoolal ñu suñu jikko baax ñëpp am ci loolu bu doon tey fii Sénégal jikko yu yi ak xol yi ku nekk ngay seet jiw bi bokk na ci li yàq réew mi jikko yu bon waaye suñu xale yii ñoom yaakaar xam nga man damay faral di gis ku mel ni Ousmane ak ñeneen dee laaj lu xew ci réew mi lu seen ci saxal noo gis am na ñu ma gis waaye boobu li ma a jàll bu ma dafa ne ma ànd ak Sonko jamaay trois mois laa leen taxaw wala gën jaa bëri leen di dee daal di tax man ko ëpp na mu ne la nguur ci boppam moo neex nguur danaa di nga sàngal li ci nekk di la mën ba nga tàqale ko sago loolu nekk ci nguur loolu moo nekk itam ci àll loolu nekk itam ci wilaaya loolu nekk itam ci xam-xam ndaw am xam-xam am wilaaya am xaalis kooku kenn mënu koo dégg looloo dal Moussa Cissé am na xam am wilaaya ab ab xamal bu la yàlla dimbalewul du sotti moom nag dafa am dimbale yàlla. yaa yaa ngi dégg yaa ngi dégg li may wax léegi léegi déedéet xam-xam la ne noonu tooñu ñu kat li ma waxoon léegi duñ judd ba toll fii di yëkk ci kàddu bi ci jublu tooñ te muy bàkkaat duñ ko def surtout weeru ko dañuy wax dëgg rek léegi Aboubacar ñoom ñëpp ñu d'accord ci. àddina li ñu ci. bu doon ñun duñ ko def bu nekkee jéem a fooy yàq jikko yi moo yàqu yaakaar defaru jikko yi nag ci jomaay ak ci ñoom la ñu yaakaar defaru jikko xale yi ci Sénégal kon ñaar ñooñu bu ñu fantasi mooy jikko yi ne yàquwaat ne Sonko moo yor si bu joxoñoon keneen ku dul jomaay bu ñu la da gañe kon na ñooñu ñaar yàlla bu ñu tàqali ko yàlla nañu am bu ñu àndee rek réew nga xale yi léppay bu ñu àndee rek léppay baax kon yàlla nañu am moo tax ma ne ko service boobu bu ma xam ma ne référence le pro mu ne ma Thomas Sankara ak PNS loolu la may indil ñooy toujours doo xale doo bokk quartier ba ñu tudd te doo xoolal ba ñu nangoo réew ak li ñu àndoon kii dafa ko lutti bu moo lay kii ma ne ko loolu yàlla bu ma loolu xëñu ci suñu réew yàlla bu ma te yaakaar te dañ ci ñaan lu ñu mën nag parce que namal jomaay ak suñu suñu ndam la xaw ma leen gisuma leen joxuñu ma tus te du ma leen laaj dara waaye naa leen ñaan. billaay léegi nag ñu d'accord parce que foofa xoolee baax ci ko yar rafet te ñii ci koy xale Sénégal yi ci ñoom la nekk xoolal lii xew fi ñu bëgg dem rek jaay ko tur yàlla bu gaa yi enquête ba gis ko jàpp ko moo di posté ñu yóbbu ko police mu xeex yi ñu dóor ko ba ñu ko yóbbu hôpital mu dee ñu laa gàddee ko rek mais c'est normal parce que boo jëlee phase pour bëgg réuni kooku la mën a rey naa rek loolu saree sax na rek na bon surtout loo xam ne lu bon ñu dem taal benn bis bëgg de moo jaay ah? te ñoom bu ñu àndoo rek loolu loolu loolu jeex kon nag yàlla yàlla may ñu ko bu wér te ñu nekk benn nee na kon nag jubal rek mbaa ñu fekk la foofu sa bopp la ñuy jàpp soo ko moo ko wax jàpp la ñuy jàpp aywa léegi loolu foofu laa doon jàpp Ababacar ak Omar ànd na ñu ñëw ñëwagul sax damaa gaaw bi nga xamee ne. waaw bi nga xamee ne ñëw nañ ci pencam lam saar ba ñëw bañ d'accord xoolal dama fukki kàddu ga am am ko dafa doon wula waaye mënu ko wut fukki kàddu ga rek dafa xëy maa ngi leen di laaj di laaj sama bopp saa ñu gis nañ ni fi xëy is yàqoon ni saa yu bi laaj sa dina laa maanaa kànd ci ñun ñëpp daa ko wax ko ànd ak Rasulullah ci xunti wa ñu ne ñu mu ne ba muy gàddaay ko àndoon loolu suñu Abubakar lu mu wax rek ñu ne ko Abubakar mu ne Abubakar tàll sa loxo ca béy ci bare Abubakar tàll Omar jaay ñoom ñëpp ñu jaay ànd pour ñëw fii ci jàppal sulla ñëpp jaay ba mu dese Seydina Ali soxna sa Fatim ak lenn ci Xurays lu ko sabab Fatima moo doon suru Rasulullah bi mu gën a am secret xilaafa la kenn musu ko yanu jigéen du ko yanu ba pencam benn jigéen moo ma sa yanu xilaafa Rasulullah Fatima mais jigéen bi yenu xilaafa nekkul bànni du tax Fatima formation aljana la daaw gis mbir buy am doom day sëfee. moo tax ñu tuddee ko bàccu yàlla tudde na ko ci sabara feral Fatima min Fataba fi taaman nga ca Masar feral nañ ko lu mu jur ba pëncëm yàlla ci sabara formation aljanna moo tax yéen a ko bëggoon ndax xeetu aljanna gi gilli ceeram di ko fóon ca ba mu ñëwee dem na ba nekk njànq di ko fóon xaayi seen ko ko am sa doom lii di ko fóon ba nekk njànq ba ko fekk xeet yoo la yonent bi dafa rañaan dem asamaan الله بتسريم قلبي ñaata ji nga xam ne kenn laa moo la gën a la ba tax na liy jaxase nit ñi ci biir di leen délee leen trompé billahi boo jàngulee te amul kilifa doo ci gën ñu ne ko d'accord nañ ko sax ku koy sax Aliou ne defoon na na naa ko sang man ak ñaari doomi Abbas muy fadloo xo nu ñu koy wax ma ak lan mu ne sama sama mag yi bu sax malaaka yi ko defar ba pare def sànni ca àjjana defar ko ba mbaax kenn musu ko war ndax baaxu góor gi doole. waaw bu daan sot tuur ndox mbaa dem fi ñuy wax ci su gannaaw kër lu mu génne suuf si day naan su pare ko woon kenn musu ci waa jaa ngoog léegi mu ne nañ ko ñu sànq ci kaw yére bañ pare ñu ne fuñ ko yóbbu ñu ne ñu ko yóbbu saaf mooy ardul ambiyay 124 millions cëpp 5 5 rek lañ suul sax am ku ne yonent bi waxoon na am yonent fu mu faatoo nekk suuf foofu boo ko kenn toxal 124 millions ku ci dem ba sa tur bi jeex day waaj a faatu da ngay dox dem sax yonent yàlla yàqu rek moo faatoo misra amaa mooy faatu bàtte ne ko su ma faatu nañ ma yóbbu saam bul ma suuf bu dee ma suuf bi te boobu gis ko daaw boo booy sànq ñu jëlee ko saam euh, misal yóbbu ko saam moo tax jël seen néew yóbbu barab a barab dagan yoon ci yàlla yàqoo dañ ko defoon ku ko wedd rek kaay ma wax noonu la ko ci téere waaw léegi ñu ne kon fii lañ koy wax moo tax fi mu faatoo ne gaa yi sax lal ba la ñu gas koo ko rot ko moo tax damay bañ demoon na suñu yónnee ba néeg xaalis la faatu. ok sunu xalifa wu mbay. ah xanaa ñu sant ñaari baax na yëgal jigéen ñi. ñu yónneen ba néeg xaalis la faatu. waaw ñu xalifa ba may yëgi a am. suura faatu. Oh, wow. dikkanteeg waxtu Aboubacar d'accord nañ ne mooy xalifa bi rob nañu Rasulullah ci gàttal def na serment ba suuru jomaay bii jaxaar fay serment bi mu nar a def billaay su ma ko baroon a jot danaa ko wax serment bi premier xalifa Rasulullah defa ba ñëpp d'accord ba mu war a def nag premier discours su ma ko doon dégg naa ko Abubakar dafa jox sant yàlla ko kañ ko julli ci Rasulullah ne nag yéen peuple les Sénégalais. gaa yi ne man Paala Paala maa ngi nii gënuma ci kenn. ndey gënu ma kenn baay gënu ma kenn ji yàlla ma jiital nag jaar na ci seet la déclaration bi mooy fii maa ngi jubal jub gi ñu waxoon ak jubal waaw li mu waxoon moom Diomaye jub jubal jubanti non France bu neex la te ànduwaat moom kat xamoon Macky Sall laa wax sama rek maanaam man naa fekk damay wax ne ñu si bat rek sama doom yëpp ñu ngi nii ñoom ñoom jomaay lañ am ñi ñëpp sama kër loolu maa leen fu la neex tamit waaye man dama fecc wóolu fépp wàcc si Babacar si ne la góor fecc wóolu góor maa ngi si jamaay. Aboubacar Sadiq. Aboubacar Sadiq. Aboubacar yaa ngi dégg. Aboubacar dafa ne. gënuma kenn yàlla mooy jiital jaar ci téléphone fépp maa ngay jaar ci jubal ngeen a jàppale saa yu leen dem ba ngeen jubaluma ngeen jubal ci ma la may ferndeel mooy tëddati ci foofu nit ñi néew doole lool ñu jël ak xam koo kay borom doole. nee naa danaa ànd si ma ko doole ba nangoo ak xam na ko. kii dëkk ci capital di ay millionnaire wala milliardaire wala mu am famille bu rëy Mbàkke sant wala si wala Fane ay mu bokk mooy ki gën a néew doole jaamu danaa jël doole ji teg ko ko ba nangu jaamu delloo mooy lii mooy lii mooy discours Aboubacar Diomaye su ma ko mënoon wax nañ ma nag ne yàgg na ba may nekk jàngar bu ndaw ji jëkk yi maa yor de jumaa di ko doon ñu ne ma na nga bàyyi xel ne fu téeméer yi daje nu ngeen ko tuddee assassin <laughs> ah maa nga fa am na beneen tudde ah ranciment zéro maa ngi leen donc loolu su ma sañoon fu may wax ranciment zéro ma waaw loolu laa bëgg. ñu ne ma yow gars yi ñu ci télé yeeg rajo yeeg écran yi ana ndox du ma ko xëcc du ma ko ñam mais ku ma woo wuy ji yeeg rajo léegi lay commencé di ma war. léegi waaw léegi ñu may woo. seen yoon rajo baaxul ak ñàkk nekk ci dëgg wallaahi. dëgg la. Euh, léegi Ababacar loolu la defoon Ababacar yoon ci biir nañ. ñu koy suul Bilaal nee na pënd bi ñu ko doon suulee suñu loxo raxasu fuñ ko ñu yëg ci suñu xol wuti ndekete teewaayu ñu suul seen biir am na lu mu doon def nekk la keroog lañ soo ko yëg ne ndekete taalibe bu am ay effet yu koy def man nettali ci récceeru sëriñ Bamba booba toogagul définitivement rek coow li jóg nit ñëpp benn waay ci état bi gis xool maanaam euh, oto yi oto yi sax dañu taxaw lépp benn waay jaaxal. sëpp ci balcon bi ne waaw ñii lu ñuy daw man de xamul li ñuy daw xamul dara xamul lu xew mu xamee ci benn wàll yéen ñu lu ko ah, lu xew mu ne ko sëñ Babacar Si moo ñëw rétière moo ci yëpp lu dul laaj sëñ Babacar nekk kon ni ñuy daw. waa jëm ci jàkkaar na ko eh sa baay la génn baax na sa baay génn baax waaw. Mam Khalifa Khalifa Mam Khalifa Babacar Si jël na ndeke yow yaay borom baba dersi jayna yow yaay borom leeri mam xalifa baba dersi jayna yow sopp sëñ Babacar Si loxoy jaga baba dersi jayna ndeke yow yaay borom leeri mam xalifa baba dersi jayna kuma jama bakk sëriñ Babacar Si loxoy jaga baba dersi ba

Happy خير وكل خير إزار الخير وكل خير إزار الخير وذكر الخير وخلف على جيزي جلقى من عطف يسير ما خلف بابا جيزي جلقى تكيو يبور ما خلف بابا جيزي جلقى تكيو يبور sëriñ Baba di dugal taxaw Baba sëriñ jël naa dafa yow yaay moom leeri man bay ma Baba sëriñ jël naa ay waay fi di Abu Bakar taaga Baba sëriñ jël naa dama yónnee dama saw di taaga Baba sëriñ jël naa dama yaa